doonut loo xam ne lu ñu sàkk la wala luñ dox sëñ bi rek mu xëy woo lu nu gis booba ñoo ngi fii ci Dakar ñu ñëw mu ne nu liggéey bi fii day bëgg ag te ñu bari am na mel na ñu koy sàkk waaye man sama xel ci yow la nekk ba tax na dem naa ba ci sëñ mu Muxtaar ba waxtaan ceeg moom ba noppi léegi nag incha bëgg nañ yàlla dogal nañ def loolu nag loola loola maanaam loolu la ñëwee ci ñun daal doonut loo xam ne luñ dox la wala luñ sàkk waaye sëñ Mountakha taxaa ci boppam moo nu woolu wax ne nu dëkk liggéey bi mu ngi bëgg a àgg te mel na ni bari na ñoo xam ne bëgg nañ ko waaye man sama xel ci yow la nekk ba jot naa ko waxtaan ci mu suñ si di Muxtaar ba nangul na ma ne ma noo ko defee rek maanaam foofu la fii moo gën a ëpp nit foofa ci ci ci Amérique bi waaye nag loolay doonte nit ñi tuuti nañ foofu itam am na lu mu jàngal daal loo xam ne jëlee nañ ko foofu ba yaakaar naa waaw dañ sant sëñ Muntaxa bu baax a baax ndax xam nañ ne tànn nañu te defe na ko itam ak yéene waaye nag loolu li ko waral mooy dafa amoon lu doxoon diggante moom ak suñu wayjur bu ba te loola da koo jàpp téye ko ba tax na xam naa. ginnaaw bëggu sëñ Touba loolu loolu loola loola bokk na ci la tax moom it mu sàmm mu mu mu jàpp ci ba lii sotti. gàddu nañu responsabilité bu rëy boo xam ne war nañ ko bàyyi xel ndax toujours damay faral di wax ne nit ki léeg-léeg moom lay doon moom ci jëmmam léeg-léeg nag day doon keneen bu denee bu bu doonee jëmmam nag xëy na mën naa am yoo xam ne mën na koo def waaye bis bu doonee keneen léegi dootu doonati dootu xoolati boppam mais day xool kooka. keneen kam doon bu ko defee nag loola mooy tax mu daal di jël responsabilité ba du dox lu wuuteeg li nga xam ne ni la war a doxee ndax bu dee yow kese rek mën ngaa def lu la neex waaye boo xasee doon keneen dootoo am sañ-sañ ndax da war a xool ci ka nga doon bu ko defee ba doo dox weneen jé benn benn jéego wala weneen doxeen woo xam ne bokkut ak ni nga war a doxee nga xanaa ñu xam ne rek barab bi barab bu sëñ Tuubaa la waaye da sëñ lépp léppam pour jullit ñi la kon barab bi barabu julli ñëpp la kon li ci ñu ñu ñu ñu xam ne itam barabub lislaam la comme barabub julli ñëpp la di barabub lislaam nañ fexe ba dara loo xam ne dana ñagas luy jóg luy ñagasal jullit ñi wala luy ñagalal ñagasal lislaam ñu fexe nuñ def suñ kam lay kattan ba kenn du ko gis fii dañ fi gis daal waxtu ne loo xam ne day wane ne tegu nañ ci kaw lislaam tege nañ ci itam ci nga jàngaleem sëñ Tuubaa bi ni mu ko bëgg woon xëy na sëñ Murtala mi mu ngi fi woon doomi sëñ Tuubaa la moom mas nañ koo jiite ay yoon ci Amérique waaye xalif général moom sëñ Muntaxa mi lañ ko mës a defar mosuñu sëñ Muntaxa rek lañ mës a jiite ci xalif général